Buzz lii la wolof njaay naan yàlla buy defar day mel ni kuy yàq wala sax ñu ne yàlla am na beneen dawal bu bokkul ak ay cax kii nga xamante ni moo di Toussaint mi nga xamante ni jàppoon nañ ko ci prison bi tëjoon ko nag ay weer yoo xamante ni defoon na ko foofu ci prison bi si noonee nag mën nañ ne ginnaaw bi nga xamante ni génnoon na nag dem fi nga xamante moo di si bërëbu liggéeyukaayam fi nga xamante ni mën nañ ne moo fa jiitoon nekkoon médecin chef di centre de santé bu Ngor moom moo mel ne ginnaaw bi nga xamante demoon na fa nag mën nañ ne dañ koo dàqoon dàq boo xamante ma ne dàq secret la moom moomee sax mën nañ ne sa vingt euh, vingt février deux mille vingt quatre si la posté woon benn ba euh, posté fi nga xamante moo ci page Facebook am ne man mii nag ginnaaw bi nga xamante ni jàpp nañ mu jàpp boo xamante ni amul benn raison bu tax ñu jàpp ma ndax lu dul politique képp moo tax ñu jàpp ma. et puis tamit ñu jaay ma ñu ñu daal di may bàyyi bàyyi boo xamante ni amul benn région bu tax ñu bàyyi ma. sa mujjantal gi tamit ñu dàq ma fi nga xamante ni moo di poste ba mu doon liggéey nekkoon médecin médecin chef de centre de santé bu fi nga xamante ni moo di Ngor dàq googu nga xamante ni moom lañ ko dàq nag mën na ni nag tey jii nag da koo daal di jural bànneex boo xamante ni nag bu neex a neex la ndax nag mën nañ ne tey ji nag fal nañ ko benn directeur bu yees boo xamante ni bu yees peq la neex lool mën nañ ne dàq sax li nga xamante nii moo di centre de santé bi nga xamante fa la nekkoon moom mii nag ni ki tey jii nag lañ ko tabb mu nekk li nga xamante ni mooy directeur général bu LONASE maanaam loterie national Sénégal ñu gën koo xamee si LONASE moom moomee nag moom lañ fa daal di moom lañ ko daal di tabb mu wutu fee ki nga xamante ni moo di Abdourahmane Doura Baldé kon nag ki nga xamante nii nag moo di euh, Toussaint Manga bu fekkoon ne da doon caalit nag salitam boobee nag mën nañ ne dina jeex ni ki tey jii ndax postom bu bees bi nga xamante moom lañ ko tabb ñu jógee ci Toussaint Manga moomee wax si beneen keneen koo xamante ni moom mii nag bokkoon na si xeex bi doon xeex depuis boobu ba léegi di ki nga xamante ni moo di Cheikh Omar Diagne moom moomee nag bi nga xamante ni moom it nag tabbal ko benn dombal tànk mu nekk ministre conseil fi nga xamante ni moo di si palais de la république moom moomee nag dinañ ko installé ni ki tey tey jii sax lañ ko doon installé si mercredi yema fukki fan ak juróom si weeru mai 2024 fi nga xamante ni moo di si palais boobee noonu ak li nga xamante ni moom dombal tànkam bu yees boobee di ministre conseil